dal leen ak jam

ko laataa ñuy commencé ku ci nekk xam ni nga war a def Abdou Karim Fofana di ministre bi yor wàllu gouvernement bi indi ci ay tontu nee kat li ni mel amoon na ndaxte kat loolu joxoon nañ leen ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi nga xam moom la génn jox ko nag assemblée nationale tamit wàllu cour des comptes Mimi Touré tamit dellusiwaat na ngir rek ërtal ki nga xam ne président bu assemblée bataaxal ngir rek gën a li nga xam ne kat moom mool mandat ba tey ci yéen kat bi bés bi mu nga xam ne kat daanaka dañ ko ndar képp diggante Benno Bokk Yaakaar tamit ku jëg politique gi ñoom ñi fasal ne kat moom ginnaaw bi nga xamee ne kat moom nag joxuñ ko bopp assemblée nationale ci la commencé na yëkkati ay kaddu ngir rek di ngàññi majorité présidentielle bi ginnaaw ba dafay fukki at nag ci nguuru Sénégal doon nag amoon ci nag ci li ay teranga yu bëree bëri ci la nag fi toll nii jóg nag bañ ko joxal assemblée nationale jóg di yàq lu mel ni xeme ñi nga xam ne kañoon ak Macky moom ay jafe-jafe yi Wade amoon ci atum 2011 jëm nag ci wàllu troisième mandat bi loolu moo gën a fës kaay bi

ne ñoom bëgg nañu jox leen lu jëm seen wàllu remboursement ci prise en charge ñii di prestataires yi ñoom ba léegi dañoo jaaxle l'observateur def taxaw seetlu ci wopp si nga xam ne kat mooy tuberculose woo fa feebul si nee kat loolu dina am solo trop ci njeexital ci wàllu cet ci waaye itam ci wàllu wér ci doomu aadama yi fii ci biir Sénégal suñ ko dañoo defa dil siwaata ñun ci quatrième salon international bu habitat bi nga xam ne kat amoon na démb

dakkal nag lépp lu jëm ci waaye yëngu-yëngu politique waaye tamit lu jëm ci ay groupe opposition fësal nag lépp loo xam ne jëm na nag ci wàllu couvre-feu le mandat di fësal ne kat am na mbir mu doy waar boo xam ne amoon na fële jëman ca Tchad juróom benn fukki ñoo ci ñàkk seen bakkan ñaar téeméer am ci ay gaañu gaañ ne kat moom fi nekkoon yi daal di ñi nga xam ne kat ñu nekk takk der yi yu bëri daal di ciy wàllu tàggat yaram yéen kaay bi di quotidien national le soleil di fësal ne président bu CNG di Bira wax na nag ñu ngi ci wàllu làmb jëm ñu sàmmoon teg waxtu yi nga xam ne lañ bëgg ko may di door li li nag bu amee dinañ gën a jox cër ak gëdd li nga xam ne kat moo nekk wàllu làmb ji mbokk yi jàngeen jëf beneen allahu rabbi bonjour

de loi de règlement 2021. Cependant, aucun d'entre eux n'a reçu une copie de ce texte qui devrait leur permettre d'exercer le contrôle parlementaire. Selon Aliou Soiré, spécialiste en droit le jour de l'ouverture de la session ordinaire que les députés la loi de règlement pour la gestion 2021, différent du projet de loi des finances pour l'année 2023. Selon Doudouad, ancien président du groupe parlementaire libéral, le principe

écrivent nos confrères du quotidien Le Mandat. Dans le quotidien Besbi Le Jour, Aminata Touré a rappelé quelques dispositions du droit positif sénégalais relatives à des incompatibilités de la, sur les relations familiales au cas où l'argument d'inconstitutionnalité devrait être soulevé contre sa proposition. Mimi Touré met la pression sur le président de l'Assemblée nationale et lui a balancé un courrier avec des arguments au cas où l'Assemblée nationale souleverait une inconstitutionnalité. Écrivent nos confrères de Vox Populi. Direct News s'arrête sur Mimi Touré, traqué par Benoît, rejeté par l'opposition. Aminata Touré elle rebondir et brocard de la majorité présidentielle. Après dix ans de gestion et de partage du pouvoir, elle sort d'un long sommeil quasi comateux pour proposer une loi née de sa déception, soutient Samuel Sarr. Benno brandit la déchéance de son mandat de député. Mimi rattrapé par son passé, les libéraux ne lui pardonneraient jamais d'avoir jubilé en emprisonnant Karim Meissawad. Pastef insensible à ses sirènes et l'opinion publique peut emballer. Troisième mandat à Macky Sall confronté au syndrome de Wade en 2011, c'est le titre qui barre la du quotidien Le Témoin, selon mon confrère. À quelques mois de la présidentielle de 2012, les partisans de Wade s'agitaient pour le pousser à briguer un troisième mandat avec le résultat que l'on sait. On assiste aux mêmes agitations à un peu plus d'un de la fin du deuxième mandat du président Macky avec la fin, le même résultat. Sud Quotidien qui revient sur l'hôpital Le Dantec, fermé depuis le 15 août dernier, et ses bâtiments démolis pour motif de reconstruction d'un nouvel hôpital au standard international, continue encore de soulever de la polémique pour cause, alors que la pose de la première pierre était prévue pour le er septembre passé, la population sénégalaise attend toujours. Au même moment, certains patients courent derrière le remboursement de leurs frais de prise

La journée mondiale du lavage des mains sera célébrée demain samedi. Le monde vient de rappeler combien ce geste simple peut protéger des infections et contribuer à sauver des vies. Des gestes simples qui peuvent sauver des vies et mettre fin à la prolifération des maladies tropicales négligées. Le quatrième salon international de l'habitat, du logement et de la construction a été ouvert hier au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio. Selon Sud Quotidien, le chef du gouvernement a souligné l'importance accordée par le gouvernement à la problématique du logement. Amadouba a plaidé pour arriver à des solutions afin de combler le gap de 300 000 logements. trace la voie pour un habitat accessible, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien national Le Soleil. Loger décemment, le plus grand nombre de Sénégalais est une priorité pour le gouvernement, Sur l'international, nos confrères du quotidien national Le Soleil révèlent que les manifestations meurtrières au Tchad ont fait hier une cinquantaine de morts. Le Premier ministre a annoncé la suspension de toute activité d'importants groupes d'opinion et un couvre Carnage au Tchad avec plus de morts et 200 blessés. Mohamed Déby, ce boucher de N'Djamena, écrivent nos confrères du quotidien Le Mandat. Selon Sud Quotidien, ces affrontements ont eu lieu après la prolongation pour deux ans de la transition qui devrait s'achever le 20 octobre. Mais fin septembre, Mohamed Idriss Déby a été finalement maintenu président jusqu'à des élections libres et démocratiques censées se tenir à l'issue d'une deuxième période de transition et auquel le président pourra se présenter. En sport, selon le quotidien national Le Soleil, le président du CNG de lutte Birassène a invité les acteurs de la lutte au respect des heures prévues pour la tenue des spectacles. Il a rendu public hier cette décision à travers une circulaire. Selon le successeur de Alunsar, le respect et la